Gambia's veteran politician and parliamentarian Honorable Sidi Ajata has advised the internet users and cyber warriors to use the internet as platform to promote peace and unity amongst the people of diverse political backgrounds. It is rather disheartening that some people see the net as a sort of a bag into which they can empty their anger and hatred. <laughs> acca <laughs> honorable Sidia Diatta bu waxee nopp day déglu ndax mm-hmm. xam-xamam ak xelam taxawaayam ci wàllu politique ak ak yelleefu doomu aadama yi naka la nit ñu mën a jëfandikoo internet bi ba delloo si jàmm ci suñu biir loolu la gaaral ci ay kàddum Amadou waa olof Ndiaye def ne wagi waxi mag mm-hmm. day guddee day du fanaan àll mu ngi noonu foog naa daal war nañ cee mën a bàyyi xel te euh, lu lu ni ñu bëri ñu ngi ci am concern euh, mhm. li nga xamante ne mooy ni ñoo nekk di use internet bi mhm. du fii rek because da ngay gis da ngay yeneen yeneen kaddu yi wala yeneen xam nga mhm. yeneen doxalin yi nga gis ko ci ci internet bi foog naa ne dafa nekk lu lu doy waar is is becoming a very concerning teginawut am stress rek bi la ko si internet bi waaw ñu jëfandikoo ci lim gënee defar ci moo gën a rafet yàq ci daal